mais bu barxaam ootee cent personnes loolu gàcce la dañu yaakaar taalibaay na ko du barxaam du si oustaz baraam la ñu xeex mais ñun si bopp la ñu xeex nuñ góorgóorlu ñu bëggante luñ oote ci bàyyi nañ dem muqadam nekk fii ñu oote si kër muqadam peut-être sax kenn ngi fii du ñëw loolu au nom de quoi lan la jëriñ am na benn gàmm bu ñu mos a invité waa ji boo gisee tànt bi ëpp na huit cent mille ci lim ci frais Cheikh Baye Pape moo ñëw gàmmu gàmmu ki lu mu 2016 la quatre-vingt nit ñoo ñëw billaahi wallaahi taala te ci géejuwaay waay gi su ma leen waxoon muqaddam di ngeen ko xam te ku ma ko waxoon ñi fekkee jataay boobu ñoom fekkee nañ ko doom baay Pape Maay Cheikh Baay moom xam na ko moo dàq gàmm day gàmm ko Baay Ñas mooy taw Pape Maay alxalif bi quatre-vingt nit parce que ñu ne buñ fa demee dañ koy may mbooloo loolu mooy faydu bi am na fi il faut accepter la réalité gis nga quand on veut soigner une plaie da nga nangu def ci alcool ba bu waa ji tëb ba toog nga doog ko xoos faj ko ñun ñëpp xam nañ suñ góom lan la iñaanante beeg xastante beeg kii xam na yàlla kii xamul yàlla kii maa ko gën a xam ak doxul say roog nangam nangam ñun bàyyi li mu ñu wax mooy génn nañu ci bokkaale fa askaru at bàyyi bari un mina shirk ki gën a tiitu sama taal bi génn na ci bokkaale yow nga fi bokkaale gisaat keneen di am koy jël ak koy seet di am koy bëgg ak koy bañ di am koy topp ak koy dàq salaamaaleykum wa rahmatullah